bëggul dàq kii bëggul di bàyyi mais c'est normal seen kër la ñun aussi suñu suñu waa kër lañ. ñun bëgguñu ñu dem ñoom bëgguñoo dem. note circulaire bi ñu mujj a bind pour pour comportement Oumar Sarr bu ñu demee ba acté ko mais au moins euh, seen commission disciplinaire war na mën a jël mais loolu c'est problème de procédure la su fekkente ni commission eh, disciplinaire dafay jël euh, euh, ay procédure pour euh, annoncer wu wala prononcer wu ci comportement boobu nga xamante ne moom la ñu moom la président lay waa acté ci yi nga xamante ne mooy peut-être li ñu jàppee comme courant dans le parti wala yu mel noonu mm-hmm. bis bu commission disciplinaire bi de waxtaan day toog procédure la ki ko jiite dina jël temps waxtaan ak ñee waxtaan ak ñee ba nga xamante ne egg nañ ci sës xëy na ñu bëgg a defe loolu nag yàlla buñ ci egg. d'accord mais Karim Wade liy xew Sénégal ump ko élection yi dàq nañ ko euh, courant bi ñu ngi koy yokk jafe-jafe yi mi ngi am loolu ump ko de déggoo ko mu def ci communiqué waxu ci intéressé wu ko. wala ñoo ngi ciy wax ñun ñun ñii ñoo ci war a wax ñun Karim Wade ah am na am nañu ko waxal ñun ña nga assemblée nationale fa ñu koy waxee fa jafe. gis nga li nga wax fii léegi léegi léegi nii nii lañu koy waxee ministre ba foofa la wax jafee Karim Wade mënu faa dem li mën rek mooy bind wala mu liir wala mu yónnee bu fi toogoon tamit noonu lay def. mais loolu sax ñeneen ñaa ngi fii. ku ci dul sedd de parti nekk assemblée nationale muy Issa Sall wala muy euh, euh, Sonko wala muy Déthié Fall doo ko dégg mu prononcé wu kenn du la ci dégg ku la ci dégg là c'est là que ça se règle problème problèmes et nous sommes là-bas pour Karim Wade simple. <laughs> ginnaaw raay nga dëkk ginnaw raay noor da nga fa am ambition politique ñu ngi jëm ci élection yi lan nga xalaat ci loolu. waaw man ginnaaw raay noor laa dëkk. ginnaaw raay noor waaw. la am nga fa ambition wala lan nga xalaat foofu ci ginnaaw raay. waaw man xam nga Pape Ngañ mooy dëkk boo xamante ne fa laa amee suma lépp xam nga loolu yow du ma la ko nett nettali. donc amul kenn koo xamante ne mun njëkk na ma fa. Mhm. wal ci ci ci def li nga xamante ne moom mooy politique. Mhm. moi je pense que dëkk boobu ma fa bëggee dara. ni ñuy waa gaay naan jinne bu bëggee Dakar ku yéeg daanu lay doon donc am naa fa euh, loo xamante ne assise la. Mhm. parce que sama papa au moins nekk na fa délégué de quartier pendant combien de temps. Mhm. ma nekk sous couvert am liggéey fa liggéey boo xamante ne ak moom ba tax. ku fa nekk di maire sax danga naan su ma nekkee maire tey yàlla ak daaw dafa ma tax. Mhm. xam nga li ma la wax. Mm-hmm. te loolu defe naa lu ci bari bu mu koy liggéey ay mag ay ñeneen mm-hmm. ñoo ñëpp. maa nga fa maa ko doon góor góorgóorlu. parce que li tax ma laaj loolu mooy tey dama la dégg assemblée nationale je pense su ma juumul tey la mais ci sa ci sa ci sa prise de parole. Mhm. dafa da nga mel ni ku xaw a campagne ale ginnaaw mu déguisé euh, ci terre bi fii euh, pavage yi nii ni nga ko expliqué ak ginnaaw raay ministre euh, transport dañ leen war a bàyyi xel infrastructure ni ma déggee dafa meloon nii danga leen di danga leen di campagne moo tax ma laaj. moi je pense que tey rek. nga ma déglu kon sama plaidoyer yépp su fekkente ne li may def ministre bi may jàkkaar lool amul enjeu direct ak itali wala laa diaspora man ginnaaw raay ak Pikine rek laay wax. loolu dégg naa ko kay xam nga ne xam naa ko. kon kay leer na xam naa danga may doog a déglu du problème campagne mais ngañ man fii ma toog di wax ak yow ah ginnaaw noor bi ma dëkk ki fa nekk nekk maire. ci parti socialiste la bokk ci parti la bokk. sama promotionnaire la. kër gi mu am moomal ko boppam nekkul ginnaaw raay la est le maire de ginnaaw raay man j'habite à ginnaaw raay non su may souffrir maag ginnaaw sama kër ci biir digg ginnaaw raay noor fa muy taawee laa ko dugal dëkk fa nit ñi di ami problème bu ñuy am problème dañuy fëgg sama bunt te loolu du li ma nekk député avant bien avant may nekk député parce que je suis immigré te dama daan ñëw ci dëkk bi dama ci fréquent si vacances 15 jours sax bu ma ko amee lambar lambari ñëw bu ma namee sama ceebu jën bu baax sax ñëwaat jël sama 10 jours congé ñëw donc bu ma fi ñëwee li ma am lu mu tuuti tuuti ginnaaw raaya may xool xam nañ ma xam nañ bu baax la ma séq ak ñoom ma je pense que su ma kaasalee ginnaaw raay kaasalu ma ginnaaw raay parce que dama leen di campagne. mais damay kaas foo xamante ne man bu ñu fa defalee tali maa fay dawal. Mhm. bu ñu fa taalee làmp sama sécurité ci la bokk bu ñu fa saxalee ay garab maa féexlu. ok comprendre yan doléance nga fa am. doléance yi ma fa am bëri na. xam nga ginnaaw raay bokk na ci yi nga xamante ne ki dëkk boo xamante ne kenn assainissé wu mhm. tey boo ko dee xool ñu dem côté sud. Mhm. parce que mu ngi lay permettre nga duggee sud mooy nga jaaroon postu Caaroy. mais foofu moom yéen a ko géré quand même ak Ablaye Diop. waaw sud sud moom Abdoulaye Diop ko géré waa PDS non dama lay wax fi ñu li nga xamante ne moom la ñu gouvernement teg mhm. te commencé wul ci gouvernement wu Macky Sall parce que bi ñuy dagg autoroute à bi ab Ablaye Wade moo fi nekk mais bu mu daggee tali yi. daf ko mhm. jaar ci biir ginnaaw raay sud. Mhm. fatt ko ba nga xamante ne tey euh, euh, ki nga xamante ne moo ma tuddee lamb ji le 22 waaye nu mu tudd Abdou Lahat Ndiaye sama rakk ji ah dañ ma tuddee lamb le 22. invité naa la ah Abdou Ndiaye <laughs> démb rek la ma koy wax naan ma honorable dimbali ma li laay war a lii nga wax ko assemblée national mhm. ñooñu ambulance amuñu fu jaar ñu fatt leen nga ñëw tey ginnaaw raay terre bii ñuy dawal nii xam nga li muy daw ci ay kilowatt mur bi muru terre bi terre bi nii la taxawee kër taxaw nii sama oto man bu jàllee pneu yi mën naa laal miiru raay bi loolu insécurité totale la xam nga li ma la wax. Mhm. ba pare ndox mi liy wàccee ci raay bi yëpp ci biir dëkk bi lay jëm mu nga posé benn problème assainissement promiscuité bi am e, e, ginnaaw raay nord du jóg ci ay euh, euh, siburu tuberculose feebar yu ndaw ndawaan ah nit bu fa feebaroon tey ñu war ko yóbbu hôpital dañuy def seet seet seet amuñu sax voie de contournement euh, terre bi tëj ñu côté bi autoroute à péage bi tëj ñu côté bi. ñu bokk ko ñun ñaar ñëpp ay ginnaaw raay éclairage public. moo ngi doog ko commencé donc mhm. jàpp naa ni lépp loo xamante ne. Euh, ñàkk naa ko ginnaaw loolu ci la bokk papa nañ. d'accord loolu c'est important ni mu nekk sa doléance ki banlieue bi <laughs> noonu la nekkee sama doléance don am na solo moo tax xam ko. Mhm. bëgg ñu ñu ñëw fa mooy. Euh, ndax nekk député diaspora yomb na parce que itam mooy première expérience bu Sénégal ci législature est-ce que yomb na. waaw man dama lay wax que ni wax dëgg yàlla yomb na ngañ moo tax papa ngañ nañu ko teg rek ci cadre euh, lu normal. Mhm. man par exemple député diaspora bi man laay wax sama bopp bu mu doon liggéey Italie fekk nga ma fa. Mhm. xam nga. Mhm. Euh, am naa maanaam <clears throat> assise sociale. Mhm. assise économique. Mhm. am fu ma foo xamante ne egoon naa fa ci barème mu salaire boo xamante ne c'était presque le double. ou le triple de ce que je gagne à l'Assemblée nationale. Mhm. yaa ngi dégg. tout à fait ñu fekk ma foofu. ma doon politique ñu boole ma ci ab liste nekkuma di fo. dama jël sama alal investir ci liste bi. ànd ak waa fédération PDS Italie. liggéey daw ba sonn. ñu jàpp ci section par section ñoom ñëpp ku ci nekk yaa jël sa alal def ci élection bi. ba ñu gagné élection bi tey gagné un parti au pouvoir ce qui n'est pas ce qui n'est évident ma bàyyi la ma doon def yépp ñëw fii. man la ma jotoon a am ca sama compte Italie. dama koy raasaatu ndax li ma la wax léegi cas social yi rek laa dëkkal dëkkuma te man. aw ma fond politique. Mhm. xëy na peut-être kenn du ma jox dara parce que nous ne sommes pas au pouvoir j'ai mon salaire de député et j'ai mes économies. Mhm. su ma jeexalee fii je prends ici. te nag maanaam eh, laaj yi ak euh, ñaan yi ak euh, ni ñu ko wax waxuma ñaan sax euh, sollicitation yi laa bëgg a wax. Mhm. ak yooyu fu nekk lay jógee. te tamit nit ñi duñ la ko wax mukk ci àdduna di ko tappale. parce que nit ñi bu ñu la tegee problème rek dañ ko am. nga bàyyi loolu ñëw fii Sénégal toog yore un million trois cent. franc boo waree dellu Italie ñu jox la benn billet boo xamante ne mooy sa ale session sa retour session ordinaire extra nga demaat encore euh, plénière euh, ñu jël ñu ñu joxaat la beneen billet nga dem dellu siwaat mooy ñaari billet gouvernement bee la ko jëlal en charge ñu leen ciy sant nag ndax ñun ay député lañ am nañ salaire mënoon nañ ko tamit defal suñu bopp parce que noonu la demee mais le président a voulu may député yi diaspora yi loolu ci commodité yi la bokk ku nekk sa ñaari billet wax dëgg yàlla loolu sant la bu gënoon bu gënoon bëri na bëri mais nu faisons des voyages dix fois plus que ligne de deux billets problème boobu mun ñu ko regle ba tey nga ñëw nag teew mu gën a metti ci yow le député de la diaspora tey problème boo yaakaar ni moo la indi tey ba nga posé ko non loolu damay wax au nom de de tous les quinze députés de la diaspora c'est pas facile pour nous. pourquoi lu tax. bi moo gën a difficile maanaam nga bokk. xam nga ñun am nañu chance man chance bi ma am man ak Nango Seck Mor Kane nous sommes voulus dans notre groupe parlementaire lu ñuy wax dinañ ñu ci boole lu ñu def dinañ ci boole suñu bëggoon kaas ne dañuy xàcc dóor fenn sax groupe bi yëpp ay àndandoo dóor mais am na ci député yoo xamante ne ils font partie de la majorité c'est très difficile aussi pour eux parce que si c'est une majorité soumise mécanique yow boo bëggee wax ni ministre bi waroon nga defar dara diaspora bi defaroo leen ko mhm. c'est très dur pour toi mhm. Mhm. or que man le ministre de de de des Sénégal des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur su ma ko buggee wax ni ko le consulat général du Sénégal de marche pas am na lu jubadi lu fa am ut nañ fa huit cent mille damay nekk à l'aise pour wax ko les problématiques des Sénégalais de la diaspora dama koy wax. Mm-hmm. gis nga tey ji par exemple du doon wax tey bilan boo xamante ne sax xaw na tuuti sax positif mooy la prise en charge des des des détenus yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk à l'étranger. lan moo ci am loolu buñ ko dee wax waxuñu ko pour Italie kese. Mhm. parce que ministère bi ñun ñooy poser. question mais lan moo ci am lan moo ci am. premier ministre bi dane ñi ngi ci kaso yi nekk foofu. waaw ministre bi dane mhm. euh, loolu dañuy teg poser des jalons actuellement. Mhm. à partir de peut-être maintenant. pour fexe ñi nga xamante ne ñoom ñoo nar a tëdd foofu de peine yoo xamante ne. peine yu dep suñ ko bëggee tëdd si fii. Mhm. ñu ñëw tëdd ce sera très difficile. Mhm. parce que nekk. kaso yi bokkul kaso yi bokkul. Mhm. de un deux nekk feene kaso moo gën nekk ci biti Italie di liggéey parce que t'as tout est ah te là-bas tu vis bien t'as am nga sa télévision am nga sa lépp. bokkul ak rëbës bokkul ak fii nag nga xamante ne portu sardine la ñuy def donc xam naa ni ñoom danañ la ko laaj yow di nga ko plaider di nga ko wax ba ñu d'accordal la ko mais c'est sûr que le premier détenu booy wax ni ko kaay tëddi Sénégal il te dira man dew ma. je même boo amee 30 ans il préfère rester en Italie parce que au moins il est soulagé am na yenn problème yeneen yi tamit tey. bu ñu tëjoon nit Sénégal fii. amul xaalis mun na dem ci ministère de la justice bind. loolu dafa ma dama cee mere ministre de la justice dama ko cee mere d'une façon parce que dafa mel ni ñun sénégalais de la diaspora yi bokkuñu ci Sénégal. Mm-hmm. aide judiciaire ñu voté la ko à l'Assemblée nationale pour les sénégalais. nga ne aide judiciaire bi du génn territoire Sénégal bu ñu tëjee fële Italie am nañu nit boo xamante ni 30 ans la war a tëdd en Italie Cheikh Diaw yaayam jooy na ba fu mu 4000 euros. président Macky Sall maa ngi la koy ñaan soxna Marème fay sàll yaayu Cheikh Diaw si mille euros moo tax avocat yi delloo ko dossier yi te dañ ne dafa rey nit te présomption d'innocence am na. parce que loxo bi nga xamante ne dañ ni moo xos ndaw si ñaari loxo la ñu tegaloo ñu di ko xeex ñu wax ministre yépp kenn nanguwuñ cee jàppale. tu penses que sa aussi. <laughs> facile na ci député de la diaspora daal boo waxee ba pare rek naan ah moom bàyyi ko rek moom day wax rek. li ma lay wax. député de la diaspora yi président daal yombul yombul président du tukki ban la nañ dem. parce que tey président bu tukkee ne la nañ dem nga toog fe jiitu ji ko fa sax toog xaar ko man bëgguma sax dugg ci avion présidentiel mais nga toog xaar ko ak accueillir ko mu ñëw nga énumérer problématique yi nga xamante ne moom la sénégalais yi am nga ni ko fii bu ñu fi defee lii baax na fii bu ñu fi defee lii baax na fi du économiquement du xaalis bi la ñuy laaj président que xam nañ du joxe waaw waaw xam nga. maanaam gars yi sax nga koy jiñ sama waa ji nee nañ affaire bi mu woy nii ci côté bi. dafa nay waaw ah, bi ko gars yi mu nee nañ sama waa ji moom la ko doon kii. <laughs> xam nañ ñu du joxe quoi sama waaj ah, daal moom ah sama waaj daal woy na <laughs> <laughs> sama waaj daal fi mu dóor baaxul donc xam nañ ni ñun waxuñu président daf ñu war a jox hmm. mais quand même mu xam lan mooy suñu liggéey mu xam ce que nous faisons à l'étranger mu xam doomam yi nekk bitim réew lan lan on avait un ministère plein le ministère des Sénégalais de l'extérieur pourquoi nous donner maintenant des directeurs des fonctionnaires léeg-léeg ñu ne ñu directeur la bu subaa ñu ne ñu ma je sais pas comment les appellations y plusieurs xam nga ñun du ñu li ma koy waxee toujours duñu fabrique duñu usine ici le PDG s'appelle Youssou Madjiguène Ndour nous nous ne sommes pas une usine nous ne sommes pas amuñu ba ñuy defal ay direction ak yooyu ñun ay nit lañ nous méritons un ministère plein boo xamante ne bu ñu amee suñu problème dem fa toog. mais affaires étrangères. ko dalaatal.